dal leen ak jàmm ci AGT news chaîne bi leen xibaar yi wér te wóor abonné leen dara bañ leen a raw. AGT news. dal leen ak jàmm mbokki internet yu AGT news. cité kër góor gi foofee la manifestation bu waa yeewi askan wi waroon a am bésub tey jilee ba ñu yegsee nag mayuñu leen dara ñi nga xam ne ñoo di takk der yi bépp accès boo xam ne mooy jëm ci kër Ousmane Sonko wala ci biir cité kër góor gi dañ ko daal di bloqué ci anam boo xam ne kenn mënu faa accéder mu nekk nag situation boo xam ne doyoon na waar lool yenn leader ci yeewi askan wi teewoon fa mën nañ cee ràññee Maimouna Bousso ak kii di Déthié Fall daal di woon fay teew ngir matal mission ba nga xam ne moom lañ joxoon seen bopp muy dindi blocus bi am ca buntu kër Ousmane Sonko comme ni niñ leen ko waxee nag lu ni mel mujjul antu ndax ñi di takk der yi dañoo teel a jël seeni matukaay ba kenn mënul dugg ca biir cité ba du ñàkk nag ñoom ñoo ñee di leader yi dinañ ci addu indi ci ay leeral wax itam sénégalais yi ban objectif moo nekk seen kanam naka lañu ñu fas yéene continuer combat bi nga xam ni moom la ñuy mënee pour la démocratie wàllum état de droit waaye itam àq ak yelleefu doomu aadama bu ci nekk AGT News donc à la cité góor gi là où Sonko coalition Yewwi Askan Wi avait prévu de faire une manifestation pour lever le blocus installé devant le domicile du leader de PASTEF pour qu'il puisse continuer à vaquer tranquillement à ses occupations. Mais les leaders de Yewwi Askan Wi n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs car les forces de défense et de sécurité avaient pris les devants et avaient barré tous les accès qui mènent à la cité Kër Gorgui. Parmi ces leaders, Déthié Fall et fois pour toutes Ousmane Sonko car selon eux ses droits sont bafoués alors qu'il mène un combat pour un pays de démocratie pour que les Sénégalais puissent vivre dans un état de droit et aussi pour que les droits de l'homme puissent être respectés notamment par rapport à la situation que vit leur collègue Ousmane Sonko. Quelle sera la prochaine étape? La coalition Yewwi Askan Wi devra apporter une réponse par rapport à la situation d'aujourd'hui. AGT News